ayca mbokk yeeg xarit yi teewlu solution TV solution info mbégte la ñuy am euh, comme altine bu jot rek ci waxtu wile ñu fa yéene ànd ak yéen ci l'émission des émissions ñu ci euh, bokk ak plateau bi nag Alaaji Sanjoogu nga ñuy waxtaanee nag waxtaan yi nga xamante ne ni ñu ngi koy euh, seetlu ci penc mi tey nag daañu ci ànd ak moom ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen leen jàmm ñaanal ko itam sëriñ si di ma sëriñ Abdou Lahad Mbacké yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd ko jàmm defal di wasaare ko ci biir këram mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaanee ci biir réew mi ak bitim réew ñoom itam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu nuyu ko moom Ndiogou Mbengue bàyyi ko mu nuyoo kentoon ti nga xam ne ñoo ngi ñuy suivre Alaaji kàddu gaa ngi noonu. ma jigéen ñi ngi lay fay di la ziar di la ñaanal jàmm. di am mbégte ak kontaante ci yow di dem ba Touba du xarit Zara de Brousse Sëñ Taxa di ko ñaanal bu yàgg fi ànd ak wér waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit. sëriñ di mu sëriñ Abdoulahat Mbacke ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool tànd ak wér. allahumma bu baax sëriñ Xaadim ne ca kër ga di nuyu njaboot ga yëpp di leen ñaanal jàmm macha allah. <coughs> waaw doo nuyu Baye Assane ah, le meilleur chroniqueur waaw ñooy nañ ñoom Modou <laughs> ñoom tout le monde ñoom Top. Hmm. Ah, ak Assane tout le monde. ñëpp ak Assane ak tout le monde bàyyiwoo kenn. mu ngi hmm. noonu jaajëfal na da ngaa bëggoon ma continuer xanaa dafa am. loo bëgg a def. <laughs> lan laa bëgg a def alaaji. <laughs> sànq dégg naa nga mel ni kuy bëgg a daanu. ay <laughs> eh, alaaji nit ñi nit ñi xamuñu ne maa ngi bëgg a daan ndax kenn gisuma ah, léegi ah. lan moo tax yow lan moo la neex si lii yow nga may tooñ sax. Eh, non non tooñ ma dama xam ni kat bële mu koy damaa muñ sax rey parce que ni nga daanoo nag xalangu fii boo fi xalangu woon xamu fu ñu koy waxee ba am. alhamdulilah sant yàlla rek macha mm. allah di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñoom euh, Modou Diouf Abdou Top ak euh, Laay Diallo nuyuwaale ndeyaam mi nekk ci studio bi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax euh, tey nag comme niñ ko baaxoo di defee rek altine bu jot daañu andi ñetti studio yu nga xamante ne ni ay nit ñoom ñoo joxe seen xalaat ci penc mi duñ ko njëkkee rek ci dudul Tunkara moom nag euh, ñëw na di ñu expliquer ak jéem a jubbanti kii di premier ministre bi di Ousmane Sonko euh, ngir rek li ma waxoon ne dañu fi fekk ab état boo xamante ne nii mi ngi en ruine. moom nag defaraat na kàddu yu gën ko wodd solo moom ni mu ko gisee buñ ca noppee daañu ànd ak yéen Bouba Ndour moom itam def na résumé ci doxalin yi nga xamante ne ni euh, gouvernement yi daañu koy doxalee jëm ci wàllu paline gi ak euh, expliquer li nga xamante ne ni moo di jaar-jaaru Ousmane Sonko ak euh, président de la République du Sénégal bi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye li mu wax ne Sonko mooy moom. moom mooy euh, Sonko daañu ci ñëw léegi ni moo gën a yaato daañu ko jeexale ak Badara Gajaga moom tamit ñëw na euh, ci chamboulement bi nga xam ne ni am na ci magistrature bi wax euh, itam joxoñ baram tuuma kii di Ousmane Sonko ne moom moo fi waxoon ne munul gëm benn Sénégal bu nga xam ne justice bi day indépendant tant que président bi ak ministre de la justice ña ngay siège ci boobu le mbir mu ne nag nii ñu doxalee mbiri daal gis na ni ne euh, punition la ak euh, ñuy war jël rek benn raison bu nga xamante ne nii dafa nekk ci biir réew mi ñu bëgg ko jël def ko noo xamante ne nii ak di ci am interprétation yoo xamante ne nii yu doy waar la moom nag noonu la ko jàngatee nuñ ko njëkkee rek lu dul kii di Tunkara kàddu yi nga xam ne nii yëkkati na ko jëm rek ci lu dul euh, jubbanti kii di premier ministre bi di Ousmane Sonko ñu dem teewlu ko te dellu si. premier ministre dafa ni Sénégal dafa nekk un état en dañu hérité d'un état en ruine état en ruine ñu koy wax ci wolof ñu ko mën a daal mooy loo xam ne dafa mokk rumbux yàqu na ba faw suñ koy wax ci wàllu état nag mooy état boo xam ni yàqute bi sori na ba nga xam ni moom ci tànku daanu rek la nekk mais du loolu état bu Sénégal wane waa FMI nee nañ état bu Sénégal fi toll nii dafa dëgër këkk ci wàllum koom ndax ñun si 2024 bi li ñuy woowee croissance yokkute bi koom bi war a yokku moom ñu ngi ko jàppoon ñoom FMI 8,3 pour cent waaye nee nañ léegi indi nañ ko sax ba 7,1 pour cent ndax gis nañ ni euh, affaire dafa xaw a tagga témbee fu mu toll nii si wàllum inflation njëkk yi yokku ñun boo xoolee euh, si Afrique bi nekk si suufu Sahara désertu Sahara ñun bokk nañ si ñi nga xam ne sunuy Euh, inflation maanaam njëkk yokk bokk na si ñi gën a néew ndax ñu suñu inflation mi ngi toll si ay trois virgule huit pour cent te yeneen réew yi ñu war wër yëpp ñoom seen seen bos dem na ba dix pour soo xoolee si wàllum croissance ba léegi fi léegi deux mille vingt cinq ñu ngi jàpp ne Sénégal croissance am dina dem ba dix pour cent. deux mille vingt quatre bi ñu ñoo nekkoon ñaareelu réew si Afrique ginnaaw Niger ak huit virgule trois pour cent waaye léegi indiwaat nañ ko. ba sept virgule un yooyu la Tunkara daal di yëkkati jëm nag ci premier ministre bi Alaaji euh, naka nga jàngatee interprétation bi nga xamante ne nii euh, Tunkara def na ko ci wax yi nga xamante ne ni Ousmane Sonko waxoon na ko. voilà Tunkara de euh, dama ko yërëm. parce que ah. li mu waxee. Ah. ak fi mu jëlee exemple. xam nga Tunkara moom day wax jubbanti d'abord sax man damay xool ndax moom jub na ba pare balaa muy jubbanti <laughs> parce que <clears throat> balaa ngay taxaw di wax waxu jubbanti. Ah. Tunkara bul fàtte ni. Mm. Eh, sénégalais yëpp la fi nax. tëgg li tëgg li njaam loolu eh, fi ko sénégalais yi séentu woon. ba taxoon ñu teg ko fi ñu ko teg. ndekete nekku fa kooku moo ñëw tey ne day jubbanti premier ministre wax ni état en ruine la ñu donn Tunkara ne daf may day tontu premier ministre mais dafa dem jël FMI indi euh, Pape joxaane day faral di wax ne loo xam-xam Demba ma Demba gën laa xam Demba ndax moo la gën a jege Demba mi yàgg nañoo wax ay croissance yoo xamante ni bii ñun gisuñu ko gisuñu croissance yi ñuy wax Cheikh Niass mi sax daan na caricature di wax ni eh, croissance croissant moo ñu ko gënal ay chiffres rek lañ ñuy wax ne ñu dëkk yéen de seen dëkk bi yéen a ngi ci jàmm te fekk waa dëkk baa ngi bëgg a dee li premier ministre Ousmane Sonko ko wax nag <clears throat> lu ñu mën a teg bët la joxoñ ko ne lii du ay chiffres Tounkara mi ngi nekk ak ñun ci ay chiffres. mais ñun lu ñu mën a teg bët la waaw dafa mokk rumbox sax yoo romb yamut sax ci mokk rumbox la def. nee na Sénégal tollul ah moom moo fa tollut parce que day soog a jógee ci nguur gi ci kanam tuuti bu yàggee dana xam ni Sénégal a ngi woon bu fekkee ne gars yi liggéeyuñu woon dina xam ne Sénégal a ngi foofu parce que li la koy wan demal ci secteur yi ana ban secteur ngay dem bu amut jafe-jafe. <coughs> ban secteur ngay dem bu amul jafe-jafe jëlal ma napp jafe-jafey neen la jëlal ma càmm gi jafe-jafey neen la jëlal ma mbay mi jafe-jafey neen la njàng mi paj mi jafe-jafe kese la lan moo waral jeunesse Sénégal bi fàq ngir buutali bitim réew mu jaral leen ñàkk seen bakkan c'est parce que état boo xam ne amatuñ ci moom yaakaar la ba tax ñu jël seen bakkan tayle ko daal ne dund mbaa dee parce que fii dund guddee gën xanaa yooyu yëpp dégg ko dund guddee gën moo fi am loolu mooy li nga xam ne lu ñu gis la du lu ñu FMI di wax naan ñu seen dépense doy na seen ceeb neex na te mosu ko ñun ñu koy togg di xool ñun ñoo mën a wax réew mi fi mu toll li premier ministre wax lu ñëpp gis la boo koy tontu da nga koy tontu fii ci biir réew mais doo ma indil ay chiffres yoo xamante ni bii existé wut lu dul ci ay kayit croissance boo xamante ni bii ci ay kayit képp lañ koy gis amul feneen fu mu existé FMI bu fekkente ni bi dafa ñëw sukkandiku ci yoo xamante ni bii tey ceslaay la moo baaxut mënta trouver lu dul résultat bu bon nan lay defee enquête am ndax def na ko ni mu waree ak yeneen ak yeneen yu ci mën a ne yoo xamante ni peut-être mënoo wax waaye am na yeneen ak yeneen yu ci mën a ne. yoo xamante ni bi par rapport ak xam nga lii lan la may nur ah. résultat FMI bi mi ngi mel ni rek sondage yu télé yi sondage yi ñu daan def benn baas dafa mës a nettali ne ma dafa am ku mës a ñëw ci moom day def sondage ne ko. boo ma joxee nangam ma def la paie benn baas ne ko man lu may doyee paie parce que paie bi hmm. du nekk dëgg-dëgg li nga xamante ni bi mooy réalité terrain bi mais waa ji la nga ko jox mooy tax mu def la paie hmm. rang bi ñu am nuñ ko amee en tout cas li ci terrain bi wanewu ko lii muy wax nii ci dundu geeg yooyu hmm. Mali gii moo ñu gën a yomb carburant ak ak ciment gën ñoo yomb lu bari kon li FMI di wax loolu ci kayit képp la ne waaye ci terrain bi amut kon Tunkara moom ci jëmi boppam moom la ñuy jubbanti waaw jub-jubal jubbanti bi tey moom mii la ñuy jubbanti parce que li muy wax jubut ah, mais alaaji xalaatam la joxe nag alaaji ah, xalaatam baaxut li mu wax dafa baaxut parce que bu xalaatam baaxul nga am problème mais li mu wax yow xam nga ni lii amut <laughs> carrément te yow li ma wax nii <laughs> loo gis la ñu ñëpp gis. waaw <laughs> mais mënu koo tontu ci biir réew mi parce que xam na ni lu mu wax ci biir réew mi day jox premier ministre raison mu dem yenu FMI indil ñu ne léegi FMI lay jël pour mu wax ni nañu nguur gi baax na bu fekkoon ne li FMI wax résultat yooyu moo am élection yi ñu génn opposition du gagné premier tour. loolu mënul ne. Mhm. bu doon li FMI wax dëgg la askan wi dinañ ko sentir ba boo deful ndànk ñooy génn ci mbedd mi ne Macky dolli ñu mais li FMI wax dara amu ci. moo tax résultat yi am am. waaw kon bu ñu jërëjëf mi ngi noonu dégg <laughs> nga jërëjëf ay ca ñu ànd ak yéen ak ak Bouba Ndour euh, résumé bi daal euh, wax na ci euh, li nga xamante ni noonu la ñuy ba tuddal ñu ci cotise pas njàcc pa comme nañ ko doon déggee ci ataaya yi ñu dem déglu ko tëddal si. je ne parle pas je parle du profane. de quelqu'un qui a sa nit ki nga xam ne li nga koy booy meeting li nga koy wax moom lay dégg je ne parle pas de texte yi lu mu wax dangay jël sa micro caméra yi teg nga ne président de la république bi dafay jël justice bi di ko xeexee nit ñi moo ma tëj moo kii Karim Wade moo def li moo def li conc yi moo ko def nii parce que moo moom mooy président bu kii mais li ngay njëkk a def teggi ko parce que nit ñi ci base loolu dañ la fa demee nga dem ba ci biir naan c'est su ma ko bàyyee lii ak lii ay waxi naa fekk la ay waxi kaso kaso la ko maanaam hmm. loolu du dëgg du yoon loolu benn beneen bi beneen bi mooy politique Pastefo APRO cotiser njàcc ci nomination yi maanaam mooy cotise pas njàcc pas cotiser njàcc les gens dañu rey seen bopp ci politique pour que ëllëg ñu ñu jox leen ay ay ay kii ay ndombo tànk donc ci nomination yi loolu rek fi fiy gis lu si gën a bëri gars yi ñu seddoo ku ne yaa ngi jox jël sa poste. waaw ah, nag buuba ku falu waaw ah, mais ku falu tamit. doo jël ña la xeex. non nga xam ne bu seen i pexe jubóo doo falu. je ne dis pas ça doo leen fi teg ne dis pas ça. c'est de bonne guerre ah. je me dis ah, loo bëgg wax. encore une fois ñaata toogoo fii premier ministre ne leen ku fi yaakaar ni dañ lay jox poste yéen nii mais boobu bu dee loolu moo leen fi da ngeen dem seen yoon. wax ko fi ay nit. non dama ne boo évaluer le nombre de personnes yi ñu fal moo lay wan que ni à la fin de la journée les gens ils se battent pour que benn moment <laughs> ñu ñu ñu occuper benn poste. mais c'est logique là aussi. waaw dama mais c'est un constat. je dis pas que logiqueul. waaw ah. dama la bëgg a wax ne rek c'est un. loolu constat bu leer beneen bu dernière dernière waaw dernière chose dernière chose mooy. Ah, ah. dañu jël Ousmane Sonko ak président Diomaye Faye bi ñu leen di fal dañu ne Sonko dafa ne eh kii mooy man man maay moom. ça veut dire que pour ngeen mën a seppi loolu ah. vous allez vous avez bu doon président Diomaye fay rek kese kese kese bu demoon ci élection yi moom kese sans Ousmane. ayca jërëjëf euh, Modou euh, alaaji bu bëndu sa xarit bi de <laughs> sa xarit la de. bu ko fàtte euh, naka nga jàngatee kàddu yi nga xam ne nii yëkkati na ko keroog fële ci jàkkaarloo. waaw bu boobaa li muy kaas moom wax dëgg fa yàlla. Hmm. <coughs> moom waru koo kaas. parce ah, que moom ci loolu la bénéficié wu sax. moo tax mu toog ci plateau bi occupé rang bi mu occupé maanaam li muy kaas ni moo ko may. amee ah, mais nee na ah, Youssou c'est vrai que frère am la mais nekkul ni moom mooy moom. du non non mais na liggéey feneen buuba mës nga ko dégg mu liggéey feneen fu dul ci Youssou. Ah. bi muy buuba ba nëga ndax mës nga gis beneen poste bu buuba mës a liggéey bu dul nagam moo occupé nangam moo tax mu occupé moo tax mu nekk nangam. c'est parce que dafa bokk ak magam fii it li muy wax nii hmm. nit ñi dañ cee bokk moo tax moom bu xoolee ni moom daf cee bokk rek moo tax war na mën a nangu ñeneen ñi nga xam ne dañ cee bokk moo tax dañoo bokk ci yëf yi parce que kenn mënul ñëw nag fekk ñoo xam ne am nañ compétence mën nañ nangu ne léegi Bouba Ndour am na compétence moo tax magam teg ko ci post bi mu ko teg d'accord mais na nangul ñeneen ñi tamit ne dañu am compétence moo tax ñu teg leen ci post yu ñu leen teg. mais nee na warul nekk affaire de cotise cotise njàcc cotise ba njàcc ba. waaw moom affaire boobu moom mooy dellu ci moom rek. ah nan la delloo ci moom bu bokkutoon ak Youssou hmm. du nekk fi mu ne de. ah peut-être lu muy dem di servir feneen kay te frère am na ko mu toog fa servir ko. kon ah, loolu nga yaakaar. Ah. kon ñu yaakaar noonu c'est que dafa am loo xamante ni dafa am. Hmm. booy critiquer ñi ñu fal danga leen di critiquer c'est parce que da nga naan matewuñu ko mais boo ko xoolee ci angle dañoo nekkoon ci xeex bi moo tax ñu fale léegi dañoo bëgg ñi nekkutoon ci xeex bi ñoom lañuy jël di leen fal lu tax loolu bu fekkente ne bi ñi nga xamante ne bi nekkoon nañ ci am nañ compétence li bon kañ mooy nga jël ñoo xam ne dañoo xeex rek mais amuñu compétence nga fal leen mais pourtant Malick Thiandoum ni nga delloo si ne ko doo jël ñu nga xam ne nii bu doon seen sago du ñu falu ñoom ci seen jëm bopp xam nañ ni buuba mii mm. euh, foofu lañ ko waroon dugal ne ko yow mii looloo tax <laughs> parce que waru leen a yilif amul compétence pour yilif leen ba ban compétence la am pour yilif pour nekk seen kilifa seen directeur c'est parce que mooy rakk Youssou Ndour rek moom moo tax terrain boobu daf ko war a moytu buuba nag day toog ci bànqaas di dóor bànqaas bi di ko dagg te xamul ni bànqaas bu daanoo moom mooy jiitu alaaji buuba sa xarit la waaw sama xarit la moo tax ma koy fàttali. Hmm. dama koy fàttali ngir mu xam ne dafa am position boo xamante ni bii moom tey moo ko tax a doon li mu doon. léegi nag bu bëggee xañ ñeneen ñi nag daat ne ñeneen ñi waruñu am loolu te yow ci loolu nga bénéficié wu loolu teguwut fenn xaw man tey su ma nekkoon su ma neex bu ma ne bu ma waxoon loolu nit du ma wax ne ma yow kat liiwu kii nga wala liiwu kële nga. peut-être man liberté bi nga xamante ni mën naa ko am sax pour wax loolu moom amut liberté boobu pour mën a wax loolu parce que moom tey mi ngi mel ni rek ki nga xam ne mooy euh, Mansour fay génn ne waaw euh, ñii dañoo lii ndax moo tax lii dañoo jege xam nga loolu Mansour Faye du ko wax. Mm. du ko wax c'est parce que mm. looloo ko dugal moom it. foofu la nekk moom dafa nekk fi mu nekk ba noppi mais gisut boppam loolu mooy li doy waar ci àddina moo tax li di wax naan mm. eh, ku njëkk a yeewu sa morom ne ko sàngal <laughs> loolu mooy li nga xam ne mooy li buuba def nii parce que wax dëgg fa yàlla ñi ñu jël da nga war a wax ne diw amut qualification pour occuper poste sàngam ñu ne la lu tax nga teg ay argument yu solide ne lii ak lii ak lii moo tax waa d'accord léegi li mu wax ci diggante Bassirou Diomaye président bi ak Ousmane Sonko nee na euh, jàngat bi mu si def daal maanaam ni ñu ko déggee mooy que ni bu dul woon Sonko peut-être bu Diomaye demaloo noonu boppam du woon doon président. xam nga loolu waxu ko daan ci sareet la Diomaye waxu taxawut wax ko ne Ousmane sonk dans dix jours mu joxoñ nit ne voté leen kii mu nekk président loolu président Diomaye wax na ko loolu boo ñëwaatee di ko répété defe yaa ngi wax xam-xam. pourtant fekk waxoo lu dul li ñëpp xam. boobu daa bëri xam ban xam-xam lii mooy xam-xam. wax loo xam ni président wax na ko barki Dembo Ndiaye nga ñëw répété ko yow xamoo ne yow yëgoo ni sax yow yaa ngi répété da ngay répété waat rek président xam bokk yow tamit président Diomaye moom ci jëmmi boppam na ko yaa ngi dégg hmm. ñi xam nañ ko waaye ki nga xamante ni ki tey moom moo joxoñ président Diomaye taxaw na jàkkaarloog sénégalais yëpp ne faluma ko yàllaa ko fal parce que Ousmane Sonko am na ñu bari ñu mënoon a wax ne diw topp leen diw mais sunu borom a ko joxoñ loo jomaay mi te it ñu am jaar-jaar boo xam ne bi jaar nañ ci mu am kóolute goo xam ne am na ko ci moom te ba jomaay di am ci ba ko ba ko jomaay di wan ngir mu am ci moom confiance jubluwutoon pour jël lii mu yor loolu mooy loo xam ni lu naturel la sunu borom def ko. léegi di taxawaat foo tourné di ko répété. Mm. da ngay soof nit ñi sax parce que soxla wu tax parce que ki nga xamante ni kii moom ci jëmmi boppam def nañ ko ko. sunu borom dogal na lool ci moom nangu na ko wax na ko waxati ko yaa ngi dégg loolu mooy li nga xamante ni bi mooy dëgg président Diomaye tey ñoom ñëwuñu ñu jël ki nga xamante ni kii mooy usmaan Ousmane ko jiital ko ngir mu fal mm-hmm. ah bañ koy wax est-ce que kenn xamoon na Ousmane ko ñoo ko jëli c'est parce que nan lañ ko tànnee dañ ko tànn c'est parce que dañu gis ni nit la koo xamante am na ay valeur yu muy incarner ñu gis ni kiikat baax na pour réew mi ñu ne kii warta yem ci lii nañ fexe tànn ko jiital ko. d'accord taxawut fii ne kii mooy doon sunu président. waaw si kër wane ci lu leer. moom daa mos a xëccoo moom. léegi nga ñëw di wax lii mel ni kuy wax xam-xam. waxu xam-xam li ñëpp ah, xam nga sa xarit la nag. waaw sama xarit la moo tax ma di ko dimbali sa xarit da nga koy <laughs> fàttali bu juumee da nga koy <laughs> wax ne ko ah sëñ bi kat wax dëgg fa yàlla juum nga hmm. teyit yat wii moytul di ko yëkkati ndax te yat wi boo ko hmm. yëkkatee du dal ci yow ñu ngi koy dóor waaye day dal ci yow mi ngi noonu jërëjëf am na solo euh, ñu jeexalee ko nag ak euh, Badara Gadiaga moom nag indiwaat na waxu Olof Ndiaye jax nee na Ousmane Sonko gor nag ca wax jax ndaxte euh, waxoon na ni justice bu indépendant warul ànd ak président bu fay jiite ak ministre bi yore wàllum justice bi ñu dem déglu ko te dellusi malal ñun ñoo bokkoon nekkandoo woon di kaas tudde ko gor ca wax ja c'était clair net et limpide gor ca wax ja faluñu ñoom Aba Mbaye jomaay président la ñu fal le projet nous est expliqué ki ñu ko expliqué c'est Ousmane sonk moo tiim askan bi ni leen man gëmuma justice indépendante bu indépendante fii ak le président de la république ak le ministre de la justice di ci siège gëmuma loolu yow sénégalais yi ñëw jënd noo leen leen gën a mën représentatif yéen ñaata yoon lañ wax ci justice fii man ma wax ci gisuma fa ñu fa toog lan lañ ma ëppalee ci Sénégal ba waruñu maa woo ma wax ak samay moroom kon lan ngeen représenté man vous ma me représentez pas man Badara parce que amul gis naa fa ñuy défendre leneen ñoo xamante ni ci ay plateau dañoo faroon féete bokkuñoo ak un Malal ou un Moundiaye Cissé te ils étaient là Malal au Sénégal tey fi ñu tool la justice li ñu wax dañ ci am luñ ci dund lu bari loo xam ni moo am fii ma yàgg a toog ni il n'y a pas d'alternative à la justice mais li am ñu xool ko nii jàngat mais les pratiques anciennes moo ñëwaat mais ñi ñu affecté Tamba ak Kédougou mais lecture bi c'est très simple képp ku laaloon ci dossier Adji Sarr laal ci dossier Mame Mbaye Niang laal ci dossier bu laal Ousmane Sonko mais affecté nañ la foo xam ni ci perception bi fii Sénégal liñ ko mës a jàppee mooy li bu Bouba wax léegi horaire baa nga jëm Tamba et c'est même grave de stigmatiser comme ça benn région ci Sénégal wala département c'est très grave loolu ñuy foowee mais li ci gën a grave du ñooñu ñu jël yóbbu leen Tamba li gën a grave mooy ñi ñu fal su dee ki ma mere laa yóbbu fële kon ki ma wóolu laa fal mais kon kooku est-ce que du nekk le magistrat du projet moom il faut faire très attention ñooñu ñoo ëpp défi ñëpp ñi ñu ñi ñëw remplacer ñëw dakaar ak yooyu parce que la perception c'est quoi c'est ñi ñu yóbbu Tambacounda dafa mel ne dañu leen bëgg a sanctionner te ñoom ñëpp mooy ku laaloon ci dossier bu laal Ousmane Sonko tey ñu boole ñoom ñëpp yóbbu Tamba yóbbu Kédougou am ñu ñu defal promo noonu alaaji kàddu yi la Badara Gacaka yëkkati mu mel ni nag nee na li fi nekkoon démb rek moom la dafa mel ni loolu la ñuy xel di gisaat ndaxte ci jamono yi ci ginnaaw euh, noonu lañ defoon Sabassy Faye mi ginnaaw ba mu jëlee ndogal jëm ci àtte bi mu doon àtte teliko yi itam noonu lañ ko defoon nee na tey bu ñu gisaatee lii tamit dafa mel ni genre dóor fayu lay doon waaw xam nga moom li ko naqari boobu wax dëgg fa yàlla wax na ko sax ci biir wax ji <clears throat> d'abord ñu ngi koy nuyu xam naa léegi dafa bëgg a dugg ci mbirum comédie boo xoolee sañse bi ni mu solo sax nga xam ni léegi euh, dafa bëgg a ñëw ngir jël si jël si suñu place <laughs> waa ngir foqar si si li nga xam ni moom lañ doon muy wàllu comédien mm-hmm. moo tax gisoo ko ni nga xam ne noonu la solo nii mais li nga xamante ni bi mooy li ne maanaam moom li mu wax sax teguwut ci xam-xam parce que daf ne ñi ñu woo représenté wuñ ko nee na lu tax woowuñu ko. Hmm. maanaam moom dafa am problème la fait que moom woowuñu ko mais mënuñoo woo sénégalais yëpp. kon moom bu ñu ko woowoon man ma taxaw ne man de ñañu woo représenté wuñu ma. Hmm. loolu koy am solo bu fekkente ni bii lañ fay def yow da nga war a xool ndax baax na wala bon na ci loolu mooy xam-xam ndax li nga xamante ni moom lañ fay def ci loolu nga war a dugg mais woowuñu ma léegi woowuñu ma ci rek dama ciy xëpp suuf moo tax wax ji ñim ko cislaayee laluwut ci xam-xam maanaam bu fekkee ne dafa demee noonu rek mooy yàq nga yow. li ngay wax même wax ji bu doon jariñ dootul jariñati parce que da nga ne woowuñu ma ci yëfi yi luñ ma woowut baaxut loolu moom ngay dégg ci kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati buñ ko woowoon mu baax mais buñ ko woowut luñ fa def baaxut parce que moom mooy ki nga xam ne mooy baaxal yëf loolu nag dafa nekk loo xam ni bew la maanaam jéem a naw sa bopp teg sa bopp foo xamante ni fi loolu nag bu boobaa nag boo ci duggee rek mooy dugg nga ci kannosu xam nga loolu ko dal noonu. non parce que maa gën a muus ñëpp ak fa la di tàmbale ña fa nekk ñëpp maa leen gën a yeew. tey jii bu ma jàppee non bu ma jàppee ni maa leen gis nga nit ñi nit ñi. Mm. dañuy mottalante nit ñi loolu la ñuy jariñante day am loo xam ma am lu ma xam nga am loo man ma am lu ma man ñu nangoo boole li nga xamante ni bi moom nga xam ak li ma xam ñu nangoo boole waaye li ma yor rekk a baax loolu bu bu yëf yi su ma ci waxut dara mënu cee baax. loolu booba lañ juumte am moom waxut critiqué wut la fa xew directement de maanaam dafa njëkk a teg boppam ne woowuñu ko dañ maa waroon a woo loolu mooy li nga xamante ni moom la jiital euh, ci yëf yi leneen li mu wax maa ngi fàtte sax am na leneen lu mu wax ñëwal ba wax si ne Ousmane Sonko yëkkati woon na fee kàddu ne euh, président ak ak ak ak ministre bi yore wàllu justice waruñu di suyee de waaw waa ñëw na aussi tamit ci li nga xamante ne bi mooy wàllu wi nga xamante ne bi mooy li Ousmane Sonko dane moo leen Ousmane Sonko moo ñu jaay projet bi mhm. président Diomaye <coughs> la mu wax lu leer la dafa expliquer wax ni magistrat yi de lañ soxla seen liberté ñu ne nañ fexe ba magistrat yi libre mu ne magistrat yii de ñoomit bu fekkente ni dañu wax ni ñun bugguñu président génn fi loolu mérité na ñay wax loolu ñu déglu leen ba xam lan moo tax bugguñu président génn fi loolu jarta déglu mais mais mais ñoom moom dafa tënku ci promesse moom jëlee bu jëlee ci la moom ñu ne Ousmane Sonko waxoon. waaw moom fee mu toog nee. waaw TFM. lu ne wax na ko Youssou Ndour. dëgg la te pourtant mi ngi ne toog fa. Ah. mais mais mais xam moom mii nee na Youssou Ndour bett na leen ay waxi démbam laa wax de moom moo waxoon ay waxi démbam ba noppi ñëw toog fële fàtte fàtte loolu lépp dafa de nit ñi fàtte nañ ko ñaata wax la wax yoo xamante ni bi génn na ca tey jii du taxawaat di wax wax jooju yaa ngi dégg donc am na loo xamante ni bi wax nga ko d'accord ñu noté ko ñëw nga ba yegg si ci yëf yi yaa ngi dégg Alpha Blondy nee na seuls les imbéciles na changent pas par yenn saay mën nga découvrir ci yoon wi leneen loo xam ne moo sabab mbir yi la nga ko foogee woon nekkul ni looloo tax loolu lan la je sais que ni président Diomaye ña nga xam ni ñoo doon jël justice di ko fowee jël justice di ko manipuler di ci def seeni yëfi bopp yow ma jigéen yow xam nga xel ni du président jomaa bi mooy doxee noonu comprendre nga nguur gi sunu borom teg ci loxoom comprendre nga lam leen wax ci njëlbeen nga moo pexe indiwu ko ci du pexe lay wut ngir toog ci pour manipuler justice bu fekkee ne bi loolu doo nga tax tout moom moo leen di manipuler justice bi loolu nag ña ko fal foofu la problème bi amee soo ñoom ñii faluñu ko de ñoom ñi nga xam ne faluñu ko ñoom ñooy kaas lool ñoom ñoo bëgg ne ko respecteel say parole te parole yi ñoom gëmuñu ko woon ñun ñi ko gëmoon ak sénégalais yi nga xam ni gëm nañ loolu ba tax ñu teg ko fa gëm nañ ni kii ñu fal du manipuler justice bi te loolu nag war na koo doy mu xool la gën bu dee la mu doon wax xool na ni mooy li gën yaa ngi dégg ci situation bi yëpp présenté wu mu xam ni loolooy li gën bu ko leeree ni lii mooy li gën dana ko jëfe bu ko leeree ni lii gënut ci justice bi du ko jëfee. mais laaj est-ce que nekkul yi tamit comme li ñuy wax rek euh, la promesse est une dette comme ñoom ñoo ko promettroon kon donc jot na nag président beeg ministre bi génn ci euh, conseil supérieur de la magistrature. déggoo ma wax la magistrat yi génnuñu tey ne loolu. Ah, bugguñu ko loolu la ñu wax. magistrat yi ñoom ñoo wax seen bopp ne bugguñu ko te ñoom la ñuy wutal. seen liberté nee na nag ñiy wax loolu mooy ñi fareek ñoom. ñi fareek ñoom. waaw moom noonu la ko mën a gisee xam nga ñoom nii la ñuy gisee ñoom dañu defe ne ñii ay lañ te ñii duñu ay ñoom ñooy politique ñoom ñoo jàppoon ni politique naxante laak waranteeg def ay affaire dëbb liñ daan nax askan wi sànni leen ci pepp mi ñuy xëccoo ak a giiroo ñi doxaleewuñu noonu comprendre nga kon donc bu yeboo ñu xam ni seen palaatu yi ñuy def defe ne mën nañoo def ay pression ci nguur gi bu yeboo ñu xam ni seen yii ñuy def doxut yaa ngi dégg waaw mu ne caaxaan rek ñi solu caaxaan ñi solu bi da ko jàpp alaaji day caaxaan rek kii ji la ay ca ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw ñuy joxante dig daje incha allah altine ak jàmm ci kàttanu borom bi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon teewlu di ñu mm. bàyyi xel amiin ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal itam kaddu yi nga xam ne ni yëkkati nga ko fi di gërëm moo Modou Diouf Abdou Top Abdoulaye Diallo ci réalisation bi gërëm itam képp ko xam ne rek yaa ngi ñu doon bàyyi xel di leen jox dig daje beneen altine incha allah.